Mm. bi mu commencé daan ay champion comme ku mel ni ay Yékini merci beaucoup wala bi mu commencé di fréquenter Aziz Ndiaye mu koy dugal ci leneen wàllu immobilier mm. yeneen ak yeneen parce que Balla léegi euh, si ils si si boobu moom commencé en boobu commencé na yor commencé bi mu takkee buri dafa jóge ci Eumeu Sène. Yacine li ma bëgg a résumé bëgg a jàmbaaru. waa léegi Yacine a wax jàmbaaru Boury Bathily ak fi mu jaar ak borom këram. loolu kenn weddi loolu jigéen bu yiw bañ na mm. ko ba bi mu jógee Màkka ba tey doo toggati ba gis boppam. ba pare sax boo mënees naa jigéen ju ju baax mooy yaay mooy épaulé borom borom këram. boo ko jëkkëram gis nañ fi mu ko yóbbu. Mm-hmm. tey jii Yacine sam problème mooy sam problème mooy pourquoi Boury est-ce nii la daan fësa ci combat Balla yëpp nii la mës a fesee ci combat ba la yëpp. non pas bii ba alage bii nii. ni ci bëri fese. yaa ci amul seetlu ngay gis. lu parce que Balla euh, dafa jógee ci défaite su ma juumul ah. Boy ah. donc te dafa am défaite yu mu tegle parce que ay bombardier la tegle ñooñu ñëpp c'est normal nag Balla ku ko xam. benn euh, bi mu doon ak bokk yi mu bokk ci làmb Balla Gaye daf bokk ci làmb mooy làmb parce que xamul dama daf bokk ci làmb mm. Balla Gaye ku ko xam-xam Balla mooy làmb euh, làmb parce que làmbam rek événement la d'accord te bis li bi am diggante bi mu jëlee signature beeg léegi mm-hmm. te soxla da koy jox kon see normal kooku ku mel noonu bu bokkee ci làmb bu euh, soxnaam xam ne kii dafa bokk ci làmb mm. c'est normal que pour mu ressusciter waat muy muy ressusciter waat c'est normal que mu mooy yaay waaw Ngone dañuy ñëwaat ci Aziz Ndiaye moom nga xam ne mm-hmm. kii nee na Balla kër Balla kër Aziz la ngemboo vraiment. waa Balla moom bu dee kër Aziz la la ngemboo xam nga seen xaritoo ñoom ñëpp ñëpp xam nañ ko. Mm. mais bu demee ba nga xam ne nga tëgg nga tëgg sa combat nga bëgg a jël yow kii nga xam ne ne mooy sa mooy adver benn adversaire bi sa kër la solo ak yooyu xam nga côté boobu doo ci mën a sori xam nga lu tax ma ne doo ci mën a sori parce que Balla Gaye ak kii nga xam ne moom mooy Aziz Ndiaye ku ne xam na seen diggante. ay xarit lañu ba pare nee naa la Balla dafa am ci lu mu jóge il fallait que mu am loo xam ne da koy war a def ci wàllu mystique xam nga tey jii kii wax na ko parce que toll na foo xam ne ci combat Balla di yow 4 heures du matin wax na ko avant combat ne danaan buri fu 3 heures jotee yéema parce que lu tax dafa am fu mu jóge kon Balla waru woon toog combat bi waru ci woon nekk loo xam ne tey cuune la ciy doon te du ko ci doon ba ilaa yow mi diini ndax boo xoolee ni Balla Balla ñëwee da ngay xam ne am na confiance moo tax ko côté mystique bi laa waxee. indi taayam bu njëkk ba teg ci non non taayam bu njëkk bi. moom gabari bi moom entraînement moom macha allah. dafa liggéey loo xam ne lépp loo xam ne ne lu ñu xamee woon Balla Gaye moom la indiwaat moo tax ma ne confiance am na moo tax ma ne da koo jekku su ko jekkul woon xam naa du ko bëre parce que dafa defar yaramam koy ci côté entraînement. defar na yaramam. ci côté mais Balla dafa liggéey ci combat bi entraînement Balla doole la daanee. Balla Gaye dépassé na ci làmb foofu fu mu dul fu muy jekk dee di bëri. Balla Gaye dafa jekk démb dafa ah, jekk dafa jekk mais nag kenn xamul mais nag mais nag mais nag Balla Balla daaneewul daaneewul kii mystique ni foog doole ak doole nag Balla Balla démb combat bi doole la ko bëree mystique sax feeñu fa doole la ko bëree wan ni ko maa la mën dama lay dóor dama lay daan noonu la Balla bëree indi nag doole mais ay problème de mystique sax feeñul démb ci làmb non non déggoo sama bi la nee naa la Balla li mu baree démb amul benn côté bu mystique feeñee loolu laa la wax sànq nee làmb moom ak mystique ñoo ànd ñoo ànd Balla bu mis bu préparé loon boppam du bëree combat bi ndax Tapha Tine muy ñëwee bu muy ñëw tamit daa def nag c'est normal Aziz Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye Balla doomam la doomam la lii démb la du tey. doomam la Aziz moo koy yar ñu bokk même koñ Balla juddoo ci kanamam yaroo ci kanamam Aziz dëreetu géeja waaye di taw ci yaramam. mais démb làmb ji war démb loolu war woon ñëw ci làmb ji. loolu sa loolu force la loolu war woon ñëw ci na lu tax loolu loolu. démb ay pro ñoom ñoom jàpp na ci combat bi jàppale na doomam. ngembee na ko biir këram yóbbu na ko stade yaa ngi dégg mu dóor tafaatin ah taxabal ko <laughs> daan ko ba mu jaaxaan loolu moom kenn mënu ko Aziz tey bu suba ku Balla di ma laaj la benn affaire bu Balla doon bëree sax sóora mi mu mën nay bàyyi sax Aziz Balla lay empereur empereur empereur bi muy jël naan da koy jox Balla chaque weer mu fay ko un million ngoone est-ce que tu ci loolu te Modou Modou Lo loolu neexul Modou Lo non loolu xaritam la bu ko neexee xam nga bu ko neexee waaye roi des bi ku ne xam ne ne empereur bi nag ku géej waaye lay yeewoo ndax moom mooy empereur roi bi nag ku ne xam ne mais empereur moo su moo su roi mais xam nga empereur bi xam nga tey nee naa la bal la uh-huh. su ko Aziz Ndiaye jëlee mu nekk lool ne ko takkal naa la couronne boo xam ne empereur nga mais empereur am la waaw dëgg yàlla wax gi nag laa la wax dégg ma la ah? li ma la wax l'enfant yóbbante galgal ubul lamb déggoo li ma la wax mais xamee moom mooy couronne am ndax le retour de Balla Gaye. waaw dañ ko ci daa jàpp 2010 roi bi daa seen roi la mais du Balla Gaye. ci seen roi la mais du Balla Gaye waaw roi nga xam. waaw xalaat nga naan ma seen roi. waaw. mais en tout cas daal parcelle nga dëkk ni nga waxee daal. moom damay yàq ni laa ma gis nga empereur. waaw ah. nu nu ma koy waxee. empereur <laughs> bii. Hmm. moo jàpp roi bi 2010. daan ko ba toog ci kawam nii yaa ngi dégg ñëwaat jàpp ko. waaye roi bi roi bi juutal ko roi bi fu mu yeewoo juutal ko ba ay xottam di fi. Mm. Mm. waaw roi bi fu mu yeewoo. waaw mm. la roi bi fu mu yeewoo. roi bi waaw kii la yeewoo. waaw waa CNG ñoo ko teg def ko roi des arènes te dama leen wax ne ñoom ñëpp dama la ko ba ci roi bi roi du daanu. déglu ma empereur du daanu. roi bi baax roi du daanu la seen boo xam bëree bëree ba dernier roma nee naa la roi du daanu gaynde la roi mooy koo xam ne boo taxawee te roi kenn du ko doonante. waaw Balla Gaye moo daan Modou Lo ñaari yoon de. roi naan la xam nga dama lay wax a a neex ba mu nekk roi lamb Balla do Yaasin la ko Balla waxoon tey laa la ko wax Yaasin déglu ma li ma la wax. Modou Lo ak Balla Gaye dix fois man tooguma fi déglu ma pour solal Balla Gaye robu avocat man moom damay solal Balla robu avocat man tooguma fi pour solal Modou Lo robu avocat xam nga laa fi toogee analyse man solal ma kenn ak rob <laughs> léegi xaaral ma ah waaye waaye la du roi Balla Gaye waaye du roi la moo fi nekk moom la CNG solal ko te Modou Lo la te moom lay doon ba keroog ñu koy daal di roi mais Aziz Ndiaye bu dafa lee raam empereur am dem solal ko Balla Gaye ma jël la du la ko fay kon kooku kooku ñoom la rek d'accord mais roi des arènes léegi xaaral ma jël am na Amina. roi des arènes ku ne xam ne ne Modou Lo la ma toog ma toog na fi pour te défendre. waaw léegi c'est bon man défendre ma fi Modou Lo défendre ma fi Balla Gaye ku ci ah, nekk tey boo daanee sa bopp ko yóbbu. yow na ko Balla sa jëkkër la non non kenn waxatu ko. ah oui xaaral kon roi woon na. waaw ah, baax na maa ngi jël Amina merci Yacine merci. merci Bamba allo. allo Bamba allo.